que les mesures waaw cest à il faut moom ay mesures d'accompagnement. pour respecter fonctionnaire de l'État. Mm-hmm. di wàññi wàññi ñetti dërëm xaw ma ñaar dërëm xaw ma dërëm. Mm-hmm. d'accord c'est bien on applaudit mais c'est lui góorgóorlu boo xam ne mënu ko jënd nu muy def. Mm-hmm. donc il y a d'autres questions qu'il faut régler doo ko wàññee am na koo xam ne liggéeyul nu mu koy jëndee. la solution c'est quoi alors. la solution mooy l'emploi emploi boobu ñu diggoon xale yi. ils l'ont promis aux jeunes. mais nañ ko jox nan leen ko jox. mais est que la la. y a aucun mécanisme pour le moment. Mm-hmm. benn mécanisme pour pour loolu. man ñu nga jooy maanaam garantir sénégalais ay revenu moo gën wàññi njëg njëg yi. il faut leur garantir benn revenu augmenter le pouvoir d'achat parce que on peut pas continuer à subventionner tout. Mm-hmm. état du doxee noonu. c'est vrai il y a des